mais lan la mën a wax tey si diggante Eumeu Sène Balla Gaye jeex na te yow xam nga ci lu bare bare te yan enseignement lañ ci mën a tirer su mu ne sax premier bilan boo xam ne dina tax li nga xam. waaw d'abord euh, damay féliciter GFM Entertainment ak toute l'équipe yéen ñëpp def ngeen ci kii parce que benn moment dañu sentir rek que ne làmb ji laaj ñu ñu dugal ci suñu loxo pour gën a encourager ba nu defee loolu aussi yàlla xam na ne que du dara moo ñu dugal lu dul rek fexe euh, suqaliwaat làmb teg ci ay principe génnewaat ci yu bari yoo xam ne xëy na ñu ngi doon suux ci làmb muy bàkkook yooyu vraiment bi ko defee aussi mbëri joué seen rôle bëri ko bëri bu rafet affaire bi jaar yoon ñu doxal ko ni ñu ko war a doxalee mu doon su succès boo xam ne que yaakaar nañu ne que participer nañu ci li suqaliwaat làmb ji parce que am na moom moment boo xam ne que ñëpp rocceeku nañu sponsor yi dem nañu coow li commencé yi mbëri jaaxle je pense que moment boobu képp ku ci jàpp rek bokk na ci lu suqaliwaat làmb donc euh, GFM entertainment nga xam ne Charles fay moo nekk ci kanam maa ngi koy félicité di ko encouragé mais ñun suñu rôle c' pas d' tout temps wax naa ko ñun duñu ay promoteur làmb ñun plateforme bu baax la ñu teg la preuve intelligemment ils ont trouvé avec Luc Nicolas and une collaboration qui fait fureur plateforme la boo xam ne dañ ko teg plateforme boobu ñëpp mën nañ ci ñëw maa ngi ciy woo ñëpp mën nañ ci collaborer au la même de la lutte plateforme la boo xam ne ni que avec notre petite expérience et nos peu de moyens yi ñu am pour la diffusion et pour pour les choses mën nañ ko teg nga ñëw ñu waxtaan ak yow tegalool au delà même de la lutte on peut aider boo gisee boo demee par exemple boo duggee léegi euh, internet boo bindee Sony di nga gis Sony entertainment bokkul ak Sony beneen bokkul ak beneen Sony entertainment plateforme la mën ngeen ci ñëw liggéey ak gars yi waxtaan juboo dem mais du ñu organisateur lamb pour xëy naan tey ñooy tëgg kii ñooy tëgg bi kooku nañ ko bàyyi promoteur bi parce que ku nekk ak sa wàll ñun plateforme lañu boo gisee sax même ni ñu doxalee affaire euh, combat Balla Gaye Eumeu Sène gis nga parce que le rôle de promoteur d'un promoteur e je pense que loolu moom moo am solo donc maa ngi leen di féliciter di woo ñëpp nag autour de plateforme GFM Entertainment muy au-delà de la lutte GFM Entertainment peut vous aider sur organisation yu bare sur conception yu bare sur vision yu bare si wàllu spectacle d'une manière générale ak si wàllu organisation wu lépp loolu mooy idée wu GFM Entertainment